suñu suñu papa yi nga xam ne dañuy politique ak suñu mbokk yi nga xam ne dañuy politique mooy am nañ xale yi nekk ci suuf yoo xamante ne nii politique lañ bugg def ëllëg te politique boobu ñu bugg a def ëllëg ci ñii lañ koy jàngee day mel ne tey ma doon wax yéen ñi yor sidi na ngeen bàyyi xel ne am na ay élèves yoo xam ne ñi ngi ci biir te buur rek lañ bëgg di ko seetaan te ëllëg lii lañ bugg réaliser ñoom nañu bàyyi xel ne Sénégal bëri na ay jeunes yoo xam ne politique lañ bugg def ëllëg te dañuy jàng ci ñoom politique umpule woon ci këru politicien laa juddee man sama papa kala bula la sama tur dëgg mooy Abdoulaye wàdd moom la ma tuddee direct moom a ngénte tey xale yooyu ëllëg dañuy jàng ci ñoom ñii politique mais est-ce que ci lii lañu war a jàng ci ñoom est-ce ñoom dañoo war a jàngal xale yooyu ne politique bu dee buur sama kii la te dina ma mës a kii ëllëg dama kaa war a def nii wala lii ñun kañ la ñuy toog Sénégal ba gis président bu gañe ki wàcc président boobu woo ko ci digg réew mi sargal ko fi xamal ko ne def nga fi lu am njëriñ ñun lan moo tax président bu wàcc président bi fiy tegu nu mu la xalabee wut wala ni mu la sànkee lay wala lii wala la kañ la ñuy toog ba gis njiitu réew yi fii di delloowante njukkal ñu ne tey Ablaye Wade moo wàcc Macky falu Macky daa war a sargal Ablaye Wade digg stade amitié woo nañ ci Sénégal yépp ndax liggéeyam ci réew mi kañ la ñuy toog Sénégal ba gis opposant boo xamante ne réew mi lay xëccoo te tey Macky exemple moo nekk ci bopp bi mais opposan bi toog di apprécier yu baaxu Macky Sall lan moo tax opposant wu Sénégal lu bon rek lay gis ki ci kaw lan moo tax ki kaw ki kaw ki ci suuf nu mu ko reyee rek lay xool moom noonu rek lay xool lu mu sànkee kii rek est-ce que noonu la ñu war a jàngal xale yi dem nañ ba Sénégal léegi benn kii moo am man dama am lu ma naqari damay taal puno amul leneen exemple biñ annoncé ne couvre-feu dafa am dëkk bi ku ne di taal puna ma génn taxaw suñu àngalu kër booy wuti ay puna jàll man leen teggi leen ko si tali bi lan moo tax ñu ne waaye mag yi du fi nekk di def lii man leen nañ dem Mermoz taal puna man sama yaay dëkk fii ëppal 70 ans sama doom di doog am 5 mois wala matalu ko nga taal fi puna sama yaay nooyu ko ma xëy yóbbu hôpital sama doom nooyu ko ànd ak feebar di dem ki la tax nga meer moom mi ngi Mermoz tëdd pétale bu doon tàkk mënu koo dégg est-ce que noonu mooy réaction bi lan moo tax Sénégal léegi jeunesse bi yëpp ci lu agressif la ñuy dox ma génn taal osan bi ma génn taal biis yi biis bi may taal Macky du ci yéeg Amadou Sall du ci yéeg Marème fay Sall du ci yéeg ndax ku ci nekk sëfër nga yor sama yaay moo yor ay téeméer ak fanweer moo ciy yéeg osan bi may taal lu yomb lay jaay sama yaay moo ciy ndugg si doo ci dajeeg Macky doo ci dajeeg Marème est-ce que kon noonu la ñu raay réagir kan lañ sànq kan lañ yàqal bu ma génnee fii taal puno gestu xool xool gisatuma puno bu ma taal ma ne cas ma ci sànni mu doon yaay diw bi ànd ak man léegi maire boobu nga xam ne taal bi ay fanweer la ciy jaay ay téeméer bu subaa mu war a fayaat ministre 3500 maanaam li mu jaayoon ci semaine bi yëpp yóbbee nga ko sa coobare bopp est-ce que noonu la ñu war a doxee est ñun dañoo war a toog rek président nekk ci kaw di xool opposant bi day am doole naa ko sànq est opposant bi daa war a toog rek di dugal ci bopp population bi ne ne président bi mu ngi leen di sànq te pourtant gis na président bi di def yu baax mu war leen lii baax na lii baax na mais lii gënul lu baax ak lu bon yëpp da koy ànd dugal ko suñu bopp ne lu bon la ñun nag suñu xam-xam du yegg foofu ñu ànd gëm ko ndax moom mi ngi kaas kañ la Sénégal di bàyyi fal président ci non kii dañ koy kii dañ koy bundu xataal dañ koy siis ñun ñëpp ñu siisu dem ànd ak moom kañ la ñuy bàyyi loolu. Nelson Mandela vingt ans la def ci kaso bi génn Afrique du Sud xam ne moo leen mën a yor ñu fal ko lan moo tax neewuñu prisonnier la kii xel mi fal nekk kii retard na bu yàgg vingt ans de prison xooluñu loolu de dañ kaa fal te biñ ko falee gis nañ réew mi demee mais Sénégal moom ki ñuy fal mooy mobile day génn taal guerre population. état bi buntu xataal ko sénégalais faral ko ñu fal ko bu subaa ñu ne waaw ah, yaa fi sosoon moo ko faloon mu ngi nii nii la ñu def